الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن شكر جوالي أنه قد ساخني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا complexe Cheikh Ahmadul Khadim di projet éducatif bi nga xam ni xalifa général di Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir moom lay liggéey ci bërëb bu sell bi di Touba ngir réaliser bëgg-bëgg Cheikh Ahmadou Bamba. liggéey bi nag sëriñ bi mu ngi tegoon xeeru njëkk wi ci le 5 décembre 2018 waaye ndorteel liggéey bi ci atum 2019 la ba ñu ko dooree ba ci weeru avril 2021 bi liggéey bi day toll ci ñaari at ñaari at yoo xam ne liggéey bi taxawul mu ngi dox bu baax a baax. firnde gi mooy bâtiment yi nga xam ne moom ngeen jàkkaar nga xam ne yu ci bëree bëri seen gros noppi na ci altine ji dëppoog juróomi fan ci avril atum 2021 Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ñëwoon ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi ngir ndemmeeku mbooleem liggéey bi nga xam ne moom lañ fiy def fan la toll lépp mu xoolal ko boppam nemmeeku gi nag mi ngi ko amalee ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké Bachir waaye sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadir mi mooy maître d'ouvrage délégué bu projet bile bi mu agsee nag ci complexe bi sëriñ Maam Thierno Mbacké moom sëriñ Moustapha Bassirou mi nga xam ni moo yor wàllum saytu gi ci projet bile am ñu ko àndal moom moo ko tatagal dalal ko ci liggéey bile ci la ñu àndee dooree visite bi ci liggéey bi nga xam ne sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ Abdoul Hakim moom la sasoo ci complexe bi muy jumaa ji nga xam ne liggéey bi daanaka noppi na ndax ay finition rek moom moo ci des ak li jëm ci wàllum karo yi ci yenn wet yi nga xam ne moo féete biti bu dee biir jumaa ji décoration bi lépp noppi na kilifa yi nag leeral nañ ko sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadir mu santaat bu baax a baax ci passif gi nga xam ne sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Hakim wane na ko ci liggéey bi le فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى شفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعا في سريعا اجمعا يا بر يا غفار يا حليم اني غر تائب مديم يا بر يا رحمن يا وكيل ginnaaw bu mu jugee ci jumaa ji ci la dem ci poste de santé bi nga xam ne moom it sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdoul Hakim moo ko sasoowaat di ko liggéey ba daanaka moom it noppi na ndax finition rek moom moo ci des ci biir sax gis nañ ne yenn jumtukaay yi nga xam ne mooy matériel médical bi tàmbali naa ñëw. lii lépp sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khadir nemmeeku ko lenn lu ci nekk ñu daal di ko koy leeral sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdoul Hakim ginnaaw bu mu liggéeyee jumaa ji ak poste de santé bi dafa sasowaat beneen restaurant boo xam ne it moom la fas ne liggéey lii lépp nag di wane Pastef goo xam ne am na ko ci liggéey bi nga xam ne mu ngi ko ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke Bachir. ginnaaw bi ñu jugee ci liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdoul Hakim sasoo dem nañu nemmeeku yeneen batiment yoo xam ne yeneen i mbokki taalibe it ñoo ko sasoo ci complexe bi bokk na ci kuréel guñ naan talixatul muridiya di ay homme d'affaires murid yoo xam ne dañoo booloo doon benn ñoom it ñu sasoo lu toll ci fukki batiment yoo xam ne juróom benn yi commencé nañ ko liggéey ko ba liggéey bi soxi lool bokk na ci bâtiment yi nga xam ne sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadr visité na ko techniciens yi nga xam ne ñoom lañu fekk ci bërëb bi ñu leeral ko lenn lu ci nekk fa mu toll waaye Pastef gi nga xam ne homme d'affaires yi nga xam ne ñooy talihatul muridiyya wane nañ ko loolee sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadr santaat na ci bu baax a baax dal di leen di gërëm ndax seenub liggéey sori na lool. ba léegi ci visite bi nga xam ne moom lañ doon amal ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi sëriñ Bassirou Abdoul Khadir ñëw na ci bâtiment bi nga xam ne ay salle d'étude lañ moom Touba ca kanam ñoom ñoo ko sasoo di ko liggéey moom it liggéey bi sori lool ndax Pastef goo xam ne waa Touba ca kanam wane nañ ko ci te Pastef googu sax tàmbaleewul ci bâtiment bi rek ne keroog ba ñuy teg xeer bu njëkk bi ci le 5 décembre 2018 Touba ca kanam ñoo njëkk a yëkkati téeméeri million jox ko sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou ne ko ñoo ko tàmbalee liggéey bi. ginnaaw bi ci lañ waat bâtiment bi nga xam ne ñoom ñoo koy liggéey sëriñ Basiiru Abdul Xaadir rafetlu na bu baax a baax seenub liggéey ginnaaw bi ñu bàyyeekoo ci bâtiment bu Touba ca kanam bi am na yeneen i naal yoo xam ne naal nañ ko ci complexe bi yoo xam ne ay mbokki taalibe it ñoom ñoo ko sasoo bokk na ci ahlu shuhada di kuréel goo xam ne soxna soo doxu moom moo leen jiite di ay soxna yu jàmbaare ñoom it ñu sasoo ab restaurant boo xam ne ñoom ñoo koy liggéey liggéey boobu it mu ngi dox bu baax a baax bokk na ci it daayira al amaana wal baraka bu duwaan bu Sénégal ñoom sasoo benn mbaar mu mag moo xam ne ci daari alxuraan ji lay nekk ñoom it di ko liggéey waaye it Taysirul Asir nekk ca Montpellier ci réewum France ñoom it sasoo nañ fi ab mbaar boo xam ne moom la ñuy liggéey ci complexe bi ci fàttali nag liggéeyu complexe bi daf ci am ay bâtiment yu bari yoo xam ni dafa am ñu ko sasoo di ko liggéey te lépp ñoom ñoo ko yore financement bi ba keroog liggéey bi àgg nga xam ne ñoom caabi rek lañuy jébbal sëriñ bi waaye nag am na ci pàcc liggéey boo xam ne sëriñ bi moom moo ko yoral boppam di ko financé ànd koog taalibe yi nga xam ne ñooy jël seenub ñaq di ko def ci liggéey bi ànd kook sëriñ bi liggéey boobu nag moom la Cheikh Mawdul Muntaxa Mbacke Bachir daal di dénk Touba Matériaux di entreprise boo xam ne Abdou Lahad Ka moo ko jiite muy lu toll ci juróom-ñeenti bâtiment yu mag yoo xam ne sëriñ bi moom la leen jox ngir ñu ko koy liggéeyal bokk na ci ay salle yu mag ay amphithéâtre rectorat bi bibliothèque bu mag bi nga xam ne mooy nekk ci complexe bi ak yeneen i bâtiment liggéey yooyu nag sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr lenn lu ci nekk visité na ko ànd ko ki nga xam ne moom moo di Abdou Lahad Ka mi jiite entreprise boobule fenn fu ci nekk it leeral nañ ko tolluwaayub liggéey bi la nga xam ne moom lañ ci def ak la ca des ba ci bâtiment bi nga xam ne mooy bâtiment témoin bu complexe bi bâtiment yi nag am na ci yoo xam ne seenub liggéey léegi mu noppi bala yàgg sax daañu ko réceptionné moom it muy naal yoo xam ne Touba matério def nañ ci Pastef bu baax a baax ngir lépp loo xam ne liggéey bi laaj na ko ñu ngi ko ciy def ngir liggéey ko nu mucc ayib noo xam ne dana méngóog bëgg-bëgg sëriñ bi wajal ilahi maskani tuuba abadu misla smiha bi jaahi xayri man abadu wa salliyan alayhi afdala salaat wa alihi wa sahbihi zawi silaat wa kullu man xadamani aw zaara فنجيه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما وهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء سنه بيا وليقلب قلبه يا ربي يا وتكفني أذى جميع العالمين وتكفي مزايا يا ربي أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى غير سافية واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنائي بناء الاهتداء ودفع عني كيد كل ذي اعتداء ودفني دار أذى الشيطان وأعز به الباقين في الأوطان commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba ñoom it sasoon nañ ci complexe bi ñaari amphithéâtre yu 500 place yoo xam ne benn bi door nañ liggéey bi ba sori na lool moom it Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr dem na fa nemmeeku ko waaye santaat leen bu baax a baax ñoom it seenu taxawaay jëmee ci liggéeyub sëriñ bi batiment bii ngeen jàkkaar lool moom la ñu tuddee këru xasida yi moom it ci biir complexe Cheikh Ahmadul Xadim bi la nekk mu nekk liggéey boo xam ne sëriñ Mountakha Mbacké Bachir mu ngi ko sas waa daara Hizbut Tarqiyyah ñu koy liggéey muy bâtiment bu mucc ayib boo xam ne xasida yi moom moo ko tax a jóg mu nekk liggéey boo xam ne bu noppee dana méngoo ak jamono te daañ ci def mboolem jumtukaay boo xam ne moom la war a àndal liggéey bii nag waa daara Hizbut Tarqiyyah def nañ ci Pastef ndax ba ñu ko dooree yàggul te liggéey bi avancé na bu baax a baax liggéey bi nag li muy dox dox dañ ko booleek liggéey ko ci noo xam ne liggéey qualité lay doon bi fi Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ak see mboolem ñi nga xam ne ñooy kilifa yi yore chantier bi leeral nañ ko tolluwaayub liggéey bi mu nekk lool santaat na ci bu baax a baax gërëm leen ci seenu Pastef وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثر الخيرات هذا البلد ورزقها وتكفيه أنك دين وتثبتن فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من سر هذا الزمن وسر غيره وكل فتن ودقنا شر النصارى واليهود visite bi nga xam ne nag moom la sëriñ Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr doon amal fii ci complex Cheikh Ahmadoul Khadim bi ginnaaw bi mu matee am lañ fa jataay boo xam ne Serigne Mame Thierno Mbacké moom Serigne Moustapha Bassirou mi saytu projet bi am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko fa leeral lépp loo xam ne moo jëm ci liggéey bi fiñ ci toll ak kenn ku ci nekk la nga xam ne moom lañ la dénk ak lañ ci jot def. ginnaaw bi it sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadir am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko rafetluwaat bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne ñooy liggéey ci chantier bi Pastef gi nga xam ne ñu ngi ko ciy wane waaye ñaaxaat mbooleem taalibe yi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne lu ñor sëriñ Mountakha Mbacké Bachir la. taalibe yi euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di ziar sunu kilifa gi di Cheikh Mamadou Bachir euh, yor kàddu sëriñ bi di maître d'ouvrage délégué ci liggéey bii euh, ñu teewal ko fi nekkal ko fi ànd ko ak ak technicien yi fi nekk yëpp euh, euh, kàddu yi nag dama koy tàmbaleeg euh, sant ko ndax yitte bi mu yitte yi muy def ci liggéey bi ak pas-pas bi mu ci am ndax buñ saa yu mënee ñëw dana ñëw su ñëwul itam. fu ma ko gisee damay laaj fu liggéey bi toll euh, nu ciy waxtaan euh, lépp lu am ci jafe-jafe walla lu ñu war a euh, lijjanti toppatoo ko mu def ca lam ca war a def loolu nag moom mën naa wax ne sax duma ko ciy sant ndax moom loolu loolu la war a def loolu la war a def loolu mooy taxawaayam fii kon nag ci turu ñi fi nekk ñëpp ñu sant ko ci loolu euh, ma may sant itam mbooleem ñi fi nekk di fi liggéey ndax ñi fi nekk euh, dugal fi seen ñaq ay taalibe Sëriñ Tuubaa rekk lañ te naal bi ñu fi naal euh, taalibe yi def ci seenu ñaq boo ko doon xayma fi ñu toll nii weesu na ñaar fukki milliards euh, kon loolu lu rëy la wax nga ko léegi lu mel nii état moo koy faral di sumb waaye am fitu lii jafe na kon nag ñooñu euh, sa ñëw bi dana leen soññ waaye mayit war naa leen a sant ndax taxawaay bi ñu fi am Serigne Cheikh Abdoul Hakim mu ngi ci jumaa ji ak centre de santé bi mi ngi jël euh, restaurant bu bees sëriñ Abdou Lahad Kam yi jiite tubaab matériaux sëriñ bi dénk ko liggéeyam bi euh, mu ngi ci euh, lu toll ci juróom-ñeenti bâtiment balaa yàgg dana am yuñ ci réception kon loolu wane ne yitte jum ci def ak pas-pas yuñ ci am daara alxuraan ji taliyaa bi ñoom it ñu ngi ci juróom-benni bâtiment euh, di ci def seen ñaq muy xaalis bu bari ëllu euh, sooda euh, di ay jigéen te soxna sooda xuma leen jël nañu waaju jigéen ña nga fële ci daara alxuraan ji di fa liggéey daayira al amaana wal baraka bu douane jël nañ mbaar fële ci daaray alxuraan ji ña nga ca daayira tey surul asir nekk ca Montpellier France jël nañ fi mbaaru jàngu tubaa ca kanam ba ñu tàmbalee ñi ngi fi jël fi bâtiment salle d'étude moom it ñi ngi ci avancé commerçant Touba yi jël nañ fi ñaari amphi 500 benn bi tàmbali nañ ko ba avancé na ñu war a jublu ci ba ca des xisbu euh, tarqiya yii fi ñu nekk nii di di ay jàmbaar ma euh, profito profito ci euh, fàttaliku sëriñ aatu di woon jàmbaar ju ju mag ci liggéey bi mu ànd ko mu wone ci yéene ak pas-pas ak yitte ju kawe euh, di ñu soññ jamono bu nekk sunu boroom jële ko fi waaye am nañ yaqin yaqin ci ne Cheikhul Khadim dana ko teeru incha allahu rabbi ndax ndax moo ko jëf Euh, état bi itam ma wax ko sëriñ bi engagement yi ñu fi jëloon ñu ngi nga xam ne lu am solo ndax bi daf ko waajaloon ci quarante cinq départements yi ci réew mi euh, kon bu ñu toppee loolu bu ñu toppee loolu centre de formation bi Mbàkke la war a nekk. waaye état bi daf ne dañuy def Mbàkke benn ñëw Touba def fi benn muy centre de formation boo xam ne sëriñ bee ko moom lu ñu fiy def ak lu ñu fiy jàngale sëriñ bi moo koy wax moo koy digle kon loolu yitte la fukki bâtiment juróom dañ dana fi nekk ci centre de formation bi daañ fi formé ñaar fukki métier ak ak ñeent ouvrier dana fi génn ouvrier qualifié dina fi génn technicien dana fi génn te bu fa jógee ku fa jógee mën ngaa dugg ci njàng mu kawe mi fii bu la soobee nga xam ne moom la commission pédagogique bi waajaloon kon sëriñ bi ñooñu ñoo fi nekk euh, sa ñëw bii nag dan dan dan dana dana nu soññi euh, soññi taalibe yépp ndax Euh, sëñ Fallou wax na ko léegi lii liggéeyub sëriñ Touba la mu fi bàyyi kon murit bu ne war nga sant yàlla ba nga tombee ci jamono ji euh, man cee joxe sa sa ñaq muy muy doon lu lu rëy rëy rëy euh, ma ma sant nag jeexal ci sant ñi ma ko àndal liggéey bi mbooloo mi ñuy wax booloo naatal Touba te sëriñ Moustapha Abdou Khadr euh, jiite leen ñu boote ci gannaawam jiite ju réy rëy lañ ci def ci loolu ndax garab dafa am solo ci fii euh, bañ nañ ko ba assainissement bi ñu fi waajal ndox mi dañ koy traité mu arrosé garab yi euh, garab yooyu nag mbooloo moomu ñoo ko jël tàmbali nañ liggéey bi nag pépinière bi sax ñu ngi ci kon ñooñu daanaka euh, seen waaj euh, noppi na dañuy xaar rek euh, liggéey bi am fu mu toll ñu mën a soog a tàmbali ndax dañuy bañ jiital loolu ëllëg mu indi ay jafe-jafe waaye loolu dong moom lañuy ñuy xaar kon nag ñoom it taalibe yi war nañoo dégg seen seen engagement ak seen ak seen yéen ci liggéey bi ku leen ci mën a jàppale yi nga jàppale leen ci ngir jëmi Cheikh Khadim Euh, bi may wax léegi wax naa état bi centre de formation bi waaye waroon naa cee boolee tali yeeg yooyu verde yi ndax semaine bii ñuy dugg nii état bi dina fi yebal benn mission boo xam ne ak euh, Ageroute ci loolu la ñuy waxtaane waaw kon loolu it loo am solo ci liggéey bi waaw kon nag li ma doon bëgg a jeexale mooy mooy sant ñi ma àndal liggéey bi euh, muy. entreprise yëpp ñu fiy liggéey euh, jiital ci Touba Matériaux di leen soññ ndax liggéey bi kat euh, dafa war a baax dafa dafa war a wér dafa war a leer ndax loolu sëriñ bi bëgg waaw kon nag sëriñ bi ñu ngi sant bu baax euh, di la gërëm ci sa ñëw bii nga xam ne yow la nu fi nekkal. lépp yaa ngi koy sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassirou mi ngi daanale ay kàddoom ci sant bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal saytug liggéeyu barab bi rawatina mbooloo mi nga xam ne ñoom la ko àndal muy waa jamaatul Mouridia muy mbooleem ingénieur ak technicien yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk. te saa su ne ñi ngi wane Pastef ba li nga xam ne mooy bëgg-bëggu sëriñ bi ñu mën ciy taxaw temm. bureau de controle bi waa AEMO ñoom ñëpp sant na leen baax gërëm leen ci seenu taxawaay jëmee ci projet bi lee daanaka xam naa mu ni su te ñëw ba agsi ci te yëkkatiwu kàddu yi cant ak ngërëm waaye daanaka li ne woon ci sama xel waroon ko wax lépp suñ maam Thierno Serigne si wax na ko kon. ginnaaw bu nuyoo bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yi di leen jot li kàddu yi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu fi sëriñ Touba di ñaan mu yàgg fi te ànd di leen jot li kàddu yi cantam ak i ngërëmam ndax lépp lu ñuy jëfal sëriñ Touba rek ab liggéeyam waaye xam ngeen ne nag moom ci boppam moo wax ca lam ñoom ñëpp dégg. mu ne ba ma agsee awma benn xalaat walla benn bëgg-bëgg walla jenn yitte wala yenn somb lu may daara ji moo ko wax ñëpp dégg kon moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ci ne damaa ñëwee ci waxtu jant bi so te bëgg a dame looloo ko dal ndax dafa ñëw fekk fi ay naal yu rëy yoo xam ne kilifaam yi ñoo fi bàyyi ku wutu jàmbaar nag faw nga jëf-jëf ju rëy ngir sag njàmbaar mën a feeñ mu fekki Cheikh Sidi Mokhtar nekk ci ñaari naal yu mag mooy jumaay Tuubaa ji ak Masaliku Jinaan bu def yitte àggale ko def yitte ngir tàmbul liggéey bi liggéey bi nag sëriñ maam Thierno sëriñ baa ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax moo ñu boole woon ci liggéey bi waaye nag ñu ngi lay beral sa cant bopp ak ngërëm ak ñu ko àndal ñëpp ndax liggéey bi ku fi ñëw dana yokk sa yitte dana yokk sa positif dana yokk sa dalu xel waaye daan la doole gën a yéem Sëriñ Tuubaa mm-hmm. ngir xam ne ku agsi fii danga xam ne lii Sëriñ Tuubaa suñ boroom beral na ko loxo kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gënam di la ñaan itam yaakaar jure ji nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha da ko am ci yow mooy itam ma am ko ci yow te yaakaar ji ba nëgë ni saa suñ xëyee day gën a leer yàlla na da ci yàlla defal tawfeex yaa ngi ñu ngi ko ànd ak ñëpp ba liggéey bi àgg ba sotti ba ngeen jébbal ko sëriñ bi ba day ci ngërëm kon kàddu yi cant lay doon ak soññu soññu bokki taalibe bi cant gi nag dañ koy ci sëriñ Amdi Khady Fall li nga xam ne moom dafa sëriñ bi njëkk sant ab liggéey mooy miir bi ñuy nekk àggawut sax waaye tuutee ci des ngir mu jéggale ko moom pastéefam ak taxawaayam ci yoonu murit àdduna sépp xam nañ ko ndax moom la maam ju nekkoon rek ca la jël lépp mu jox ko Sëriñ Tuubaa te desalu dara kon Sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm di sant nag bokk ñu mu bokkal Sëriñ Tuubaa ak seexi Sëriñ Tuubaa ak taalibi Sëriñ Tuubaa ndax ñoom ñoo dajale seeni alal def luñ man ak luñ mënut ndax ku ne xam na ne waxtu wi sëriñ bi woote liggéey bi ci jamono ju xat lañu nekk waaye sëriñ Tuubaa yëgul jamono ju naqari mhm. ilaa si waa yi day xus zaman mbirum sëriñ Tuubaa jamono ju naqari mhm. waaye xam na ne ñépp def yitt def pësëb def taxawaay ba dajale xaalis bu bari bi sëriñ Thierno tudd léegi li nga xam ne nag sëriñ bi waxoon na ko ba mu toogee nekk jataayu sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne ku dem ma dem ku demul ma dem loolu nag am na lu ci Cheikh Abdoul Ahad jàngaloon dafa waxoon ne sëriñ nee na ku ne ku ne ku ne ku dem ma dem ku demul ma dem boo geesoo gis mbooloo ci sa kon loolu wax dal ci liggéey bi dafa jóge yitteem ak pëstéefam ak taxawaayam li ko taalibe Serigne Touba yëpp jox ak seex Serigne Touba yi mu dajale ko somb liggéey bi lool nag ñu ngi ko toog ci loxol Serigne Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne moom la Serigne ko doon tudd léegi mu du ko defal boppam gis ngeen bâtiment yi jaar nañ fi ñëpp gis nañ ko seen bopp moom itam ñu ngi ko ci sant bu baax ndax la ci ëpp solo mooy def nañ ci taxawaay def nañ ci jom def na ci positif. ndax ku fi ñëw xam ne liggéey bi méngoo na ak weesu na sax ni ñu ko séntu woon kon yàlla ko yàlla dimbale ba lépp àgg kon loolu mooy li sëriñ bi dajaleel boppam ànd ko taalibe sëriñ Tuubaa ak yoon wi moom moo yor loolu li ci dolli ko nag lim ne lam ne woon ku dem ma dem ku déwul ma dem kon sëriñ Tuubaa wuyu na ko ndax bi mu gesoo mbooloo daw nañ wuyu si ko loolu mooy ñi ñëwaat ginnaaw bi kon ka ci jiitu mooy doomam Serigne Cheikh Mbacke mi Serigne Abdoul Hakim nga xam ne waaye juróom diggam ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëpp xam nañ ko waaye mu ànd ko njabootu ko Serigne Bassirou gépp fa def ku fa dem dana la yéem xam ne pëstéef jom ak yitte ju ko kon ñu ngi koy ñaanal moom itam yàlla dimbale ko lépp sotti ba day ca ngërëmul sëriñ bi day ca ngërëmul juróom day ca ngërëmul maamam di gërëm nag waa Talyaxatu bi nga xam ne ñoom kenn jëkku leen wuy si ñoom itam mooy Talyaxatu bi sëriñ ko sa tudd na ko di ay jàmbaar yoo xam ne suñ boroom dimbale na leen waaye nag ñu xam ne ku yàlla defal feex jox la wërsëg bu la defaloon ndimbal ba defoo ko ci lu baax rek perte ko ko ndax noonu rek lay mujj kon nag yàlla defal na ne ndimbal ñoo xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa képp moo am njëriñ ndax mooy liggéeyal yàlla ñu jël seen alal def ko ci ku fa dem ci seen barab be da xam ne ay jàmbaar dëgg-dëgg fa ne kon ñoom itam yàlla na yàlla gën a dimbale gën a barkeel seen alal jooju ba liñ fa seen yéen a liggéeyal bi ndax waxoon nañ ko ko ne ko rek lañ lay jox yàlla na ci yàlla dimbale ba loolu àgg ak waa ahlu shuhada suñ ceeram tudd na ko léegi ñoom it lañ fee def gis nañ ko di gërëm nag waa daayira Touba ci kanam ñoom buñ jëfutoon fii itam leneen li ñuy jëf ci dëkk bi yóbbaale na seen jëf ndax ñaa ngi ca tëliya ñaa ngi ca poste de santé am nañ ci war ubbi fan yi ngi ca làmp ya ñaa ndox ma ñaa ngi leneen loolu lépp di ko gàttandoo sëriñ bi ci bëgg li sëriñ Touba ñaanoon ci dëkk bi tam wóor leen dara mënu ko te sotti ñuy góor góor góorlu waxtu ne fexe ba loolu sotti kon yaa neen yàlla gën a dimbale tàggat xooli nit ñi itam ba liñ leen laaj ci sëñ bi ñu koy gën a mën a joxe ngeen xam ne ci sëñ bi liñ leen koy defal waa commerçant yi Touba mooy ñi yaxantu yëngu sax ci commerçant yi waaye ñi yëngutu ci dëkk bi ñoom itam ñu xam ne ñoo am taw feexe dëkk ci dëkk bi kon lu ñuy def ci dëkk bi kenn waru leen caa jiitu daaw la ñëwoon teg fii xeer yi ñoom itam seen liggéey baa ngi sori kon ñu ngi leen di ñaanal ñoom itam suñu borom barkee seen liggéey ba fa ñu war a àgg ci liggéey bi ñu àgg fa di gërëm itam fii nga xam ne fi lañ nekk nag muy waa daayira Hizbut Tarqiyyah ñoom li Cheikh Mouhamadou Mountakha di wax nee na ñooy soldaari yoon wi soldaari nag xam ngeen ni mu baaxoo bu fekkoon tan ci nguuru suñ borom bi nguuru suñ borom bi nag dañuy wax ne ñooy malaayika yi malaayika nag laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun mooy amuñu bëgg amuñu bañ loolu bëggu sëriñ bi mooy seen bëgg-bëgg li ñu dawit mooy loo ne xam na ne sëriñ bëgg ko kon ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax keroog ba sëriñ bi teg loxo liggéey bi ci seen loxo ba mu woowee suñu aatu ñëpp yi dégg mu ne ko ànd leen ci liggéey bi ne ko nag bu mu su téeméeri million ndax xam naa ne leen war dafa bari loolu ko suñ doon suñu aatu na ko déedéet ñi nga tàmbalee ci téeméeri million ba milliard oh, waaw kon ci pësteef loo ko defee kon ba yàlla def suñ borom jële ko ci biir kon loolu doy na seere diggam ak Sëriñ Tuubaa sëñ Yuusu mi ko wut itam ak mboolem ñu ngi ko seqal ndax ndax ñoom ñeneen yàlla bi ne boo tuddee kenn tudd nga kenn ñëpp mm-hmm. kon sëñ Yuusu itam ñu ngi koy ñaanal li tax jataay bi fekkiwu ko ndigal li ma sëriñ bi joxoon ma tegaat ko ci seen loxo ñu war koo séddale ci li fi xewoon ca la nekk fii ne maa ca Saloum wala mu nekk Casamance te bañ ko koy joxee tam jàppoon nañ da ko yónnee waaye mu gëm ne liggéey sëriñ Tuubaa kenn waru ko caa jiitu sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha tam wax ma ne xalaat gi la sëñ Touba xalaat loo nga teg ko ci seen loxo sama maama la gàttandoo loolu. ne ma nenan noo ko defoon de ma ànd ci yow ndax sa loxo laa teg waaye nag lii mooy li ma gën a jubóo ne ma danga camaat tawfeex si digg sëñ Touba ba tegal ma ci ne daal bay boo ñëpp bàyyi la ak samaam ndax xam naa moo lay gàttandoo kon loolu tawfeex la kon yéen itam ñu ngi leen di gërëm ci liggéey boobu. di ko jeexale rek kàddu yi soññe mooy xam ne liggéey bi ku fi dikk xam ne taalibe yi jàmbaar lañ ilay yaqaadallaahu maalam yëkku ni wala yëkkunu abadan li mu koy ni ku fi dikk da ko gën a xam fii ndax yitte yitte juréy ji ak dogg gi ak pëstéef bi ma gis fii Sëriñ Tuubaa képp la ko suñu borom defal ndax lu ma tut ñetti at nga somb somb fanweeri milliard nangam te teewul nga am yeneen i somb yu nit yu bari yoo xam ne nit ñi xamuñ ko te naga ni ni ko Sëñ Thierno waxee bu ñu xoolee li fi dem daanaka mën na ñaar fukki milliard kon wane na ne mbirum Serigne Touba waxtu ne kanam lay gën a jëm kon loolu war naa gën a dolli suñu dalu xel ci suñu digg Serigne Touba ndax Serigne Touba kat nga gën a baax ne boo ko ko joxee day gën a yokk te firnde ji mooy ñi ko njëkk a topp tàmbalee ji Cheikh Ibrahima Fall suñu Adama Gueye Cheikh Issa Dieng suñu Massamba Diouf Sane Samb Cheikh Ibrahima ak mboolem Cheikh Serigne Touba yëpp suñu Mourou Fall ñoom ndax boo xasee dem boo le boo tuddee kenn rek ndax ñooy ñooy ñooy àndandoo Serigne bi mm-hmm. boo xasee tudd kenn rek ñëpp tàbbi nañ ci biir. waa ñoom ñooy njëkk ànd ak sëñ bi kat dañoo gàddaayoon seeni mbokk bàyyi seen i dëkk bàyyi seen lépp dëgmal sëriñ Tuubaa te seen tuuñ ci payug tey payug ëllëg lañ ci seen tuuñ kenn ku ci ne ba ci say sët nag ne sëriñ Tuubaa defal na leen loo ne ku ci mujj juddu sa xéewal di ngeen yokk te seen ëllëg yi dàq seen tey kon nag ku am taw féexe ne ci kaw suuf di liggéey sëriñ Tuubaa war góor góorgóorlu bu baax te xam ne defoo lu ko gën ndax. ñene ci leen kat di dajaleel ëllëg amul njëriñ ndax danga ko fi bàyyi mu tasaaroo ci sa njaboot wala ñu defe ko lu naqar yàlla wala bu ñu ko defee lu naqar yàlla mën nga caa ba tuyaaba te alal ji moom ñaar rek lay jariñ li nga jëfandikoo ci si jëmm yëg na jëfandikoo ko te lu néew lay doon la ca des loo ci delloo ci yàlla perte nga ko ndax amul njëriñ maa maamoom nangam rek la dund mu boo ñu war ci jànge lu rëy rëy rek mooy gën a góorgóorlu te xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa rek mooy li am solo te waxoon na ne ku ma jox sa lépp ma defar la sa lépp ku ma jox sa leen téye sa leen yi la ma jox ma defar la ko kon nañ gën a góor góorlu ci jël suñ jitte ak suñ waxtu ak suñ lépp jëbal ko Sëriñ Tuubaa rawatina na suñu alal ndax loo xam ne wóor na leen la mu waxoon genn kilifa ba gàmm dafa ñëw mu togg ay ñam yu baree bari waaye ay nag yu bari di ko séddale ci pénc bi indil ko sëriñ bi sëriñ bi ne ko loo ci jublu mu ne ko xam naa xanaa eh, delloo la njukkal sëriñ bi ne kon yàq nga sa jëf ndax mënu ko ndax la ngeen man ba mën a jëf li maa leen ko defal kon mënu leen maa delloo jugal delloo njukkal ga daal mooy yéeg na maa leen ko defal yéeg na maa leen ko defal nag kon mooy booy sant yàlla i'malu ala Daawuda shukran ak cant warta yem ci xol warta yem ci lam ñu waa da ko war a jëf waaye gëm naa Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa jëralu la sa alal jëralu la sa jëm itam loolu nax sa bopp la kon nit ñi nàmmaat suñu xol suñ posté suñ dégg Sëriñ Tuubaa te xam ne ñun ñëpp li ñu indi ci Sëriñ Tuubaa mooy yaakaar ko àddina ak àllaaxira yaakaar Sëriñ Tuubaa àddina ak àllaaxira nag ku ne war ngay natt sa bopp waxtu ne looy def di jiite Sëriñ Tuubaa looy def de jiite Sëriñ Tuubaa ci sa xool ba xam taalibe Sëriñ Tuubaa bii kat ndax Sëriñ Tuubaa bëgg na ay taalibe mel nii bu la wóoree ne bu taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp meloon na yow yoonu mu gerte boo limaalee sa bopp ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi war ngaa xoolaat sa bopp ngi ñaan nag Sëriñ Tuubaa gàttal ñu ndax mel na siñ bëgg yombut waaye war nañu gën a góor góorlu di ëpp dogu di yeesal pëstéef te xam ne Sëriñ Tuubaa àdduna boolewuñu moom li ñu boolewu moom mooy yaakaar ko àdduna ak alaaxira mm-hmm. te kenn mësu ko yaakaar di ko rëccu loolu li weesu mis misaal la ci doy na ci misaal tali ci kanam mooy ëpp kon bu fekkee taalibe Sëriñ Tuubaa fu nekk ñoo fa ëpp wërsëg dàq faa joxe ëpp fa alal kon war ñoo xam ne joxe joxe ci Sëriñ Tuubaa day yokk sa alal waaye du ko waay kon nañ ngeen góorgóorlu bu baax te xam ne sëriñ bi sëmb bu rëy na te dégg ngeen la mu waxoon ca màggal ga ay milliards yu baree ci dem te lii ci dem lu mu bari bari kat lu mu bari bari bari ma ngeen jàpp ne bu àggee la koy saytu ak di doxal liggéey bi moo koy ëpp kon nañ xam ne noflaay amut noflaay moom amut ci yoon murid wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin suñ boroom day wax ne retraité amu ci jaamu Yàlla waaye liggéey Sëriñ Tuubaa itam amu ko Cheikh Ibrahima Fati danaa def xam nga ni lépp doo ko joxoon sëriñ bi saa su ko sëriñ Tuubaa woowee boo yeewee mu ne ko yaa ma njëkk xëy fuuf ci liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ba nëgg ni wàcc ko kon li fi wàcc ko du ma wàcc kon ñun itam kii ne ci suñ kanam di Cheikh Mouhamadou Mountakha ku fi mas a lekk nekkal sëriñ Tuubaa liggéeyal na la ci sa jëmm liggéeyal ci yoon bi fàtte jëmmam fàtte boppam fàtte ak njabootam kon ñun itam ñu topp ci ginnaaw ñëpp lii ngor ci ñun ak liñ ko war a mën a jéem a delloo njukkal wala jéem jéem ko ko gàttandoo ci liggéey bi mooy topp ci ginnaaw lam daa wax ne sama kilifa dama koy bàyyi boppam bàyyi ko sama bopp danaa daana wax kilifa bi ne leen saa su ngeen ma séenee xam leen ne lu lu doonoonum xel ci man rek lem naa ko ci yéen kon loolu da doon wane da doon wane ni bi war a mel ndax moom ko àggale ci borom waaye nag dañuy jàngal ni ñu war a jéem a doxe suñ digg moom kon xam naa wax ji gudd na waaye lépp rek bëgg ñu ñëpp ñu maas si jëriñoo bëgg luñ jëfoon ñu fàtte ko tey jëfandu ko te xam ne eh, fi leen koy defal fu wóor la ndax moom kat faggulu dara boppam faggulu dara ak njabootam lépp ak jëf na ko Sëriñ Tuubaa waaye nag loolu mooy la am solo Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mas na ko wax ak njabootam ci mu jëm leen du leen fi lu ngeen di doon de waaye dinaa leen fi lu dul jeex liggéey Sëriñ Tuubaa tàbbal na la ci biir nag foofu la ne koy ñaanal ni mu nekkee ndam ci àdduna sépp nekk ndam ci lislaam jëpp nekk ndam ci réew mépp yàlla na ko suñu borom aar sàmm ko ba li ñëpp yéene ci moom bëgg mu àgg fa ba ak dundam nekk xar baax yàlla na ko suñu borom defal ndax ñëpp ko ko yéene mboolem ñu bokkal Serigne Touba kat te ne ci ginnaaw ñëpp maas ci bëgg Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàgg ndax xam nañ ne cofeel bu leen ëmbal ak yéene ñoom ñu topp ci ginnaaw bi tam waxtu woon ñu ngi ko koy wan ñëpp maase nañ ci yéene ko ndam kenn ku ci ne bu la laajee xalaat sax dag naan ko nu nu mu jubee ci yow rek ànd nañ ca ngir bëgg lam lebloo ñu fay ko. gërëm bu baax a baax sëriñ Ahmadul Bari Mbàkke ibnu Cheikh Mahamadul Fadil ndax sëriñ bi ci jataay ba mu njëkk def dafa wax ne bi sama xel demee ci liggéey bi mu benn xalaat lu weesu yëkkati ko teg ko ci loxo daayira Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne sëriñ Ahmadu Badu bi moo ko jiite ndax nee dama leen cee fekkoon ci seen yitte ak seen taxawaay waaye ñuy seere it ne sëriñ bi ko ci sant di ko ci gërëm ndax lam ci séentu woon ci moom ci lim ci war a taxawe lañ ca war def lépp def nañ ko ci ba lépp noppi na ci programme ak li nga xam ne fa la war a jëm ak lañ ca war def ëllëg mooy ñu mu ko seqal def nañ ci ba def ci lu kawe njortu sëriñ bi kon moo itam sëriñ baa ngi koy sant bu baax ndax xam na ne ba mu jëlee liggéey bi teg ko ci loxoom ba nëgë ni amul guddi amul bëccëg amul jënn yite yite bi yëpp jën la ko teg ne ngir bëgg sëriñ bi am ndam kon moom yàlla na ko sëriñ Tuubaa fay di gërëm itam kuréel gi nga xam ne ñooy jëmbët fi garab yi te tuddee seen bopp naatal Tuubaa te def seen jëwriñ sëriñ Moustapha Mbackeem Cheikh Abdoul Khadir mu nekk seen jëwriñ indi leen ci sëriñ bi te boole nag doomam Serigne Mourtada ñoom itam Serigne Thierno seer ne seen taxawaay ne tàmbul nañ seen liggéey kon ñoom itam ñu leen ñaar bu baax li nga xam ne sumb nañ ko fii ak sumb ko ji dëkk bi suñu borom dimbale leen ci barkeb Serigne Touba lépp sotti niñ ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala bërëb bile di complexe Cheikh Ahmadul Khadim ñu naan ko université bu Touba bëgg-bëgg Cheikh Ahmadou Bamba la woon ndax lu mu ñaanoon yàlla suñu boroom la ngir dëkkam bu sell bii di Touba doon bërëb bu ñuy saxal sàkkoo xam-xam seetantal ak dégg xam-xam waj'alu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wa tafahumi waaye xamlewaat ne yàlla suñu boroom tabaxal na ko ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa bërëbu jàngukaay boo xam ni moo fi dàqee lor réer ak fétéerlu bil mustafa lii banaal xuddoosu madrasatan biha yazulul aza wal jëhlu wal kabadu lii Serigne Touba bëgg nag faaw day am waaye murit bu ne nag war na ci dugal loxoom kenn bañ ko cee mën ànd kook sëriñ bi liggéey bi nag war talaal suuf benn yoon nanga xam ne noonu la ko Serigne Mountakha ba Bachir waxe woon ca keroog ba ñu teg xeer ba. ñay ñëw liggéey bu mu laal suuf mukk nañ ñaan bu mu laal suuf mukk. loolee nag kenn ku ci nekk war na cee fekk si sëriñ bi. di ko ñaanalaat mu yàgg fi lool te ànd ak wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa